jàkkaarloog askanu Sénégal Nikitaï, tay bu 20h joté Mambay ngir rek peut-être liñ ci xaarandi ont prononcer prononcé aussi troisième candidature en bi est-ce que war na événement sax. ah war a événement di ndax. nak a événement. depuis 2020 ñong ñuy euh, xaw xam nga tout poudre dinañu wax né dana am du am dans le oui ni oui dans le ni non. aujourd'hui ça peut être déclarer sa euh, candidature ak ñu valider sa candidature parce que nous avons ñuy wax NTM je pense que moi, bu ñu ba conseil constitutionnel valider candidature Mais peut-être que la ñuy taxaw ne mukk du ci mais est-ce que mën nga tere leader mu déclarer candidature Parce ku si je suis man mën déclarer sama candidature euh, yaas suis na ko def ku si wax et puis bu ñu demee ba toll ci euh, valider foofooy coow faut faire coow li man je pense que président Macky Sall taxaw man candidat la en fait ñëpp ñu ngi c'est vrai parce que président nag Sall du n'importe qui. Mhm. moom mooy njiitu réew bi coowal quinquennat am fii. c'est normal nit ñi xaar ko mais que mu taxaw wax ne candidat la ak ñu valider candidature am je pense que am na wa am na am na différence bu bu bu mag. juste rappeler que ni euh, amoon nañ benn juriste bu waroon ñëw tey mu ñu toog waxtaan peut-être dina ñëw. parce que amoon nañ kàddoom ba pare duñu wax kan la. Mhm. alors si kanam tuuti bu fekkee ñëw na dinañ euh, ànd ak moom. ci euh, plateau bi. Euh, pour faire ce que ak moom justement ci walum candidature bobu nga xamné ak déclaration bu président euh, Macky Sall bëss bu ñëwé rek ñu ànd ak moom. léegi ci candidature boobule Mame Mbaye soulevé na point bu am solo moo dit que président Macky Sall il est justement il fait partie d'un parti politique donc mën na nekk candidat au parti politique bobu ça n'engage que eux quelque part est-ce que sénégalais war ñu tiit mel Mamadou Fofana wala ñu wara a ci li ni mel. waaw tiitaange ak que mën na am. pourquoi parce que xam nañ ne lu jëm ci wàllum troisième mandat quand même coow li dafa bëri benn le dilatoire yàgg na mais boo xoolee ci ñi nga xam ne ñu bëri tey la ñu jàpp moom mooy Macky Sall benn dafa war a respecter kàddoom mooy ba mu faloo dane du ma nekk candidat à maintes reprises mu réitéré ko te xamuñu lu tax après mu war a mën a def faut wala garder le flou justement avec ce oui ou non duma wax oui duma wax non euh, pour li jëm ci le troisième mandat man de japon ci nga dina kat candidat te ci bi wax raison troisième mandat mais entre temps il s'est passé ben, beaucoup de choses. <laughs> non non non sur non nous nous la non non non mais non attends mais man. Ah, d'accord ma wax ma wa wa d'accord man dama lu tax ma ma candidat parce que Ben candidat. Hmm. Hmm. bii buñ ma ko falaatee pare naa ci bopp réew mi. Mhm. ñëw ñu laajaat ko mu ne leen duma ci tontu. Mhm. kon communication bi évolué na. mu dem mu ne ay ñoñam bu ci kenn wax lu jëm ci wàllum troisième mandat. ku ci wax mu rek digg ñi wax ñi ne mën na nekk candidat wasalaam ñi ci àndut ni mu rëkk seen digg Nous demaat il faut évoluer. waat ne duma wax oui ni non Nous, dem France wax gagné, oui, nous allons continuer la marche pour ce pays 2024 victoire de ko assurée, a ainsi de suite ainsi de suite donc c'est autant de faits que j'ai convoqués pour dire ne ne Macky li dem ci troisième mandat mais li xew ci rencontre entre les maires dafa am ay déclaration yoo xam ne et c'est pas n'importe qui ñoom ñoo ko def benn ci déclaration Oumar Youm lay tàmbale dafa ne mhm. président Macky Sall boo fi du kan nga xalaat ne ne mën na fi nekk koo xam ne il pourra faire l'unanimité mhm. déglul bu baax lu Youm di wax de il est président du groupe parlementaire il fut ministre il président de groupe parlementaire le président et nous, nous aussi ci restreint nous président ci nañ le de cabinet du président mu ko euh, le candidat APR Benno Bokk parce que ce ko fii amul kenn koñ fi mën tek ko xamne nit ñi dinañ top ci gannaam ci biir APR ak benn Bokk Yaakaar. oui bien sûr parce que le candidat peut-être que le président va désigner wala ku mu jàpp ne moy nek dauphin koku dina wax nit ñi pour ñu converger pour ñu mën and ak mom japp jàppale ko. yum jógee ci lool Thérèse Faye ñew ne ko ñun président de la république ñun xamuñu ku dul yow. c'est que ay kaddu la yo xamne day mel ni ne am lu ñuy yëg ñoom.

waxul ba leeralu leen dara de ba léegi li mu leen wax mooy booloo leen nekk leen benn Benno Bokk Yaakaar ak euh, kenn képp ku nekk allié da ngeen war a góorgóorlu ngeen gën a am générosité ngeen gën a ubbeeku ba pare ngeen gën a travailler la baase mhm. c'est pas ah, ah. léegi nag ba ma déggee loolu moom it mu wax leen loolu j'ai compris que le gars fu muy mujj mooy risque de jeter l'éponge

man dama japp ne ne xaj ne euh, loyauté yoy nañi def mais quelqu'un comme lui il est présidentiable pourquoi ñu bëgg japp ne budul maké du kenen ñom ñep parcours am ak lépp il peut être le candidat de la paire comme Amadou Ba keneen ak keneen ak mais leneen li ma ci japp moy xam nga mom dafa am fu mu tambalé té da koy fatali lu ci bëri ay nit ko bu yàlla defee nga jóge ci benn famille boo xam te ne nii kat yàlla la mu nam moon mooy bëriwuñu woon noonu doole tey mu dem ba def la njiitu réew même bu dee benn fan sax ci dis même bu dee benn fan laa la wax loolu rek dafa doy ci ndam ak ci sant yàlla kon donc leneen tamit moo di ne ci ay collaborateur am am na ci yenn déception yoo xam te ne nii après jàngat na ko ci am na ko ci parce que dem na ba xam ne ne est-ce que véritablement ça vaut la peine est-ce que euh, euh, l'ange euh, vaut la le jeu en vaut la chandelle parce que dem na ba xam ne ne véritablement est-ce que ni loyal nañ ko ni est-ce que ci doxali nak yoy mën na nangu parce que ko dindi après mu ber daram di la song di la ki parce que lool yeb bu ko dajalee tamit jalalati ko ne ko mu naan wii naa dem di def ay troisième candidature boo xam ne day mën ce sa pays dans le kaw. yow yag nga junj ni président Macky Sall xeyna mën na jeter l'éponge ndax euh, ci li ñu jot gis xeyna tay li muy euh, Mamadou Fofana di wax ci jàngat mën na fësal la taxone mu ne du ma ne nii wii nii non ndax ñima andal bot sama ginnaw su ma nee wii wala non xëy na dana jaxase samay carte ci wàllum mm-hmm. liggéey yu ma leen dénk. justement xam nga xam nga euh, wax parfois dañ naan wax dafa jooy ñu nekk lu tax nga jooy mu ne dañ ma teel a wax te wax jotagul wala mu ne peut-être euh, am na nuñ ma waxee te waruñu ma woon a waxee noonu. alors le chef de l'État président mag Sall tey jii bu fekkoon dañ na bëreet comme ni mu ko defee woon wax ne du ma nekk candidat mm-hmm. bi mooy sama last bi dem ba si biir gis na ay am na évolution parce que ne du euh, euh, candidat comme ñi nga xam ne ay ministre nekk ci peut-être am na nu ñu doon doxalee nu nga xam ne boobaa mi du président Macky président Macky Sall mandat bu mujj bi xaaral aussi ci peut-être na ba moment c'est le moment idéal pour wax soit damay nekk candidat wala du ma nekk après man dama japp ne ba fiñu ñu ni président Macky Sall déclaration bu muy def moy duma ma wat waat mm. respecté kàddoom comme niñ niñ ko ko euh, pas imposé mais niñ niñ ko ko fàttalee mm. parce que nag buñu ñu ko euh, sur le plan international def na liguey bu am solo te ñepp bàkkee nañ ko moy mm-hmm. liko euh, Idrissa Seck waxaloon mm-hmm. ne ko def na liguey bu rafet kon nga lawaay bu ko yak te mm-hmm. ñepp nangul nañ ko fi ci réew mënuñu bañ ne président Macky Sall liggéey na bu ñu waxantee dëgg liggéey na comme président Abdoulaye Wade bu muy dem am na réalisation yu am solo yu mu def am na fu mu jëlee Sénégal am na fu mu ko andi ci ay réalisation peut-être bilan immatériel nga ko mën a waxee ne mën nañ ko fa joxuñ baaraam ci wàllum démocratie wala genre yooyu mais bu dee bilan rek am na ko alors loolu est-ce que war na ko yàq est-ce que lii nga xam ne bàkke nañ ko ba fi ñu toll nii est-ce que moom ci boppam war na ko yàq man je dirais non du ko du ko yàq dina ut candidat bu nga xam ne peut-être moom moo koy moom mooy dem présidentielle 2024 ñoom ñu ànd ci. ay euh, ni nga ko waxee maître Oumar Youm wala euh, Thérèse Faye ñoom ñu taxaw naan boo demee koo ñuy bataleel wala parti bi day sax loolu xam nga dañ koy wan na nag fii. bëgg nañ la yaa fi ne boo demee dañuy jaaxle tout sax ay seen rôle lañ nekk. rôle lañ nekk rek comme bépp militant bu nga xam ne ni ñu ko gisee ni ma ko waxee sànq si waa parti démocratique sénégalais boo doon laajee ñu ne am ñu plan B Z X benn plan la ñoom muy mooy seen candidat nañ ne ñoom nee nañu la ñoom moom mooy euh, Ousmane Sonko ñoom i la ñu nekk mais ñoom ñëpp parti bu ñoom ñëpp ku ci bëgg bokk élection boo demee ba si ci pandaw nga xam ne kii du bokk da koy mujj teg ne uti keneen ñun xamante nañ loolu te bientôt nga gis nga gis loolu parce que parrainage yi ñëw na ba noppi amatuñu toogu di xaar naan ki mooy suñu candidat kii lañ fi tegax plan B plan Z ñoom ñëpp kaay ma xamal la d'ici un mois ou deux talatuñu waxi candidature xam nga la lañ tal dem uti jaay parrainage signature talatuñu ay détails parce que instant boobu moom li ñaa wëri ba dem na këng waxi mag den dan daan tàll bële rek moo ci des bëre bi mooy njëkk uti jaay parrainage foofu la ñu jëm après Macky ne va pas me surprendre d'ici Ousmane Sonko ak euh, Fabrice Nguema ndax euh, moom ci euh, génn gi mu génn dem jàkkaarloog askanum Sénégal.